amoon fi nga xam ne kat moo ci Sénégal ci weerum juin ci at at mi gis ne kat daanaka kenn évalué gu ko waaye tamit ci loo xam ne daal war na gaaw lool ci ñu ci ñuy saafara kon ñu gisee ki nga xam mooy ilimaanu jëwriñ ji Amadou Ba ak équipe am ñu daal di xaar ay semaine wala sax ay weer ngir mën a xam lan moo tukkee ci euh, xew-xew yi nga xam ne moo am ci Sénégal gi ba daal na nasaxal koom gi waaye laataa lool rek gis ne njàngale mu njëkk bi nga xam war nañ koo amal ci euh, jàppante yi xam ne kat lu njëkk la ci taarix Sénégal naam waaye ñu gis am violence yi nga xam ne amoon na fi lii nga xam ne kat ci wàllum taarix kenn du ko fàtte ci alternance 2000 ba jàpp 2012 waaye ñu gisee kat li nga xam ne daal mooy jafe-jafe gii mënuñ ko woon a waxtaane état bu Sénégal ak i partenaire ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppal tànk wala ñi nga xam ne kat ñoo koy dimbali ci wàllum koppar ñoom ñëpp jamono ji ñi ngi xool kat lan moo ciy saafara waaye itam xool yàqu-yàqu yi nga xam ne am na ci waaye ñu gis tamit situation bi nga xam ne moom la daaru ji kaw ji am di université Cheikh Anta Diop du Dakar rawatina tamit ci li nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram wàllum mbay mi ak li nga xam mooy wàllum tugal ñàng meeg ñàngale mi ak moomeelu askan wi gis tamit loolee daal yaxanal gu baax a baax lañ ci war a yor bu fekkee ne bëgg nañ jàmm ak li nga xam mooy kaaraangi askan wi kon gouvernement moo war génne ca nungu siin ay responsable politique ay élève ak i jàngalekat ak ay tasar xibaar yoo xam ne da leen teg loxo ñu gis tamit mesure yooyu daal dina tax rek daanaka tension bi gën a wàññi wala sax seen ñëngi-ñëngi xol loolee dina gën a wàññeeku lool pouvoir public yi ñoom tamit war a mën a xool ay tontu yu leer yoo xam ne tamit war kon ñu gis ne situation bi nga xam ne moom la UCAD nekkee ak li nga xam ne moom la askan wi am waaye tamit foog ñu daal di fexe ba daal di soowee ak année académique bii gouvernement bi war na gunge négociation yi jaarale ko ci jëwriñ ñi nga xam ne kat ñoom la concerné ak autorité nga xam ne ñoo yor wàllu njàng meeg njàngale mi kon nag ñu delluwaat ci jàmm loolu daanaka mooy capacité imaani jëwriñ ji ak équipe bu fekkee war nañoo indi ay ton yu leer yu wér te gaaw